mu ngi ci euh, ligne bi euh, Birane euh, ñu ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ci plateau bi mu ngoog donc ñu dellu si su fekkee ni mu ngoog biraan ñu ngi lay nuyu allo salaamaaleykum maaleykum salaam waaw ñu ngi lay nuyu bu baax Birame Yaya Wane may fàttali ñu ngi lay fay mu ngi lay fay ñu ngi lay fay. di la jaajëfal bu baax di rafetlu sa teewaay ci euh, plateau bi yaa ngi ñu fekk ñuy waxtaanee mbirum euh, jàmm si jamonoy euh, campagne électorale bi ak violence yi nga xam ni nemmeeku nañu ko ci fan yi sans doute jàmm joojee soxal na aussi hmm. ñi nga xam ni ñooy yëngu ci cadre privé national bi. Hmm. waaw vraiment maa leen di remercier. di et puis di am kontaan di leen déglu ci seen waaw mais déglu naa intervention yëpp waaw man euh, li président Mody Guiro wax man loolu laa wax te loolu laa gëm man euh, Birane Yahya Wane laa tudd maay président conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal maay président bu secteur privé et développement waaw je suis doctorant chercheur en économie et je suis de la chambre consulaire de l'UMOA mm-hmm. donc huit pays de l'UMOA yëpp mm-hmm. am naa droit dem seen chambre de commerce mm-hmm. fëgg fa nga ubbil ma ma def li ñuy wax benchmarking seet yëpp bu ñu ci raw noo def ba raw ñu euh, yan ingéniosité ak yan innovation nga indi ci administration ak see yeneen secteur ba nga tax nga raw ñu man loolu au quotidien loolu laay def maa ngi koy def au niveau de l'UMOA au niveau de la CEDEAO nga xam ne libre circulation des personnes et des biens mais à, à l'étape même de la ZLECAf mu doon la zone libre échange continentale africaine donc sama gëstu mu ngi tourné yooyu yëpp léegi nag pour pour la daal mooy xam nga secteur privé sénégalais euh, parce que dañu am hiérarchisation hiérarchisation mooy entre les acteurs économiques opérationnels les fonctionnaires les Moura les Dorma les na tapal yi bëri na bëri boo xam ne pour léegi nga xam ne laaj looy beeg piir bi dafa compliqué. waaw mm-hmm. ah, loolu li ci borom daal mooy. Ah, ah, léegi daal li ma ci mën daal. Mm-hmm. mooy daal ñun bougé wul mais daal. Mm-hmm. nous sommes un pays. bi nga comme ni ko Modou bi la waxee sànq. wax bi bëri na fi. mais te jëf ci am aase woo. bougé wuñu te loolu rustu na ci surtout bu mel ni Sénégal ce qui fait que tey on est en retard dans beaucoup de secteurs d' et dans beaucoup de piliers développement te loolu moom c' pas c' pas c' est comme euh, comme euh, vraiment wax nga ko en tant que qui tend vers uh-huh. en tant que dirigeant d' entreprise lan nga jàpp ni moo waral réew mi ba jamono ji euh, bougéwul mais mais mais fekk xam nga de xam nga bu fekkee ni dëkk boo nekk nga xam ne am nga am ay yàlla bokk ay potentialité ay ay richesse mm-hmm. à l'échelle vraiment nationale. Mm-hmm. parce que tey boo ubbee carte la carte PAVAR. Mm-hmm. nga xam ne les richesses ils sont identifiés. potentialité yi maara day taale. yàlla fàttewuñ ci dara. man maa ngi nii de boucler. Euh, la visite dans onze régions du Sénégal mhm. te tey fu ni ne tey dëkk boo dem mais ñun euh, lépp la ñu am euh, les artisans que je salue au passage tey ñoom ñu ñu war a gën a mën taxawee sax ci secteur bi artisanat bi mhm. am lu bëri lu des parce que tey ci Pamar nee nañ mën nañu récupérer ay pots yu mel ni euh, dans la région de Diourbel plus plus précisément à Touba. nga xam ne ni bu amee ay màggal wala yeneen feet ay ay milliers de nag lañu lañu rey mais nag ay gana yi ñooy gaare seen oto ñoom dañ ko ñëw chargé ko yóbbu ko gana buñ demee nag xoosaat bi def ko genre yàpp di ko togg seen i marché man ma xoolaatee xoolal mooy yeel yi gis nag mooy yeel yi gis nii alors que tey waroon na am benn tannerie bu ñu waroon installé entre euh, entre Touba et Mbacké euh, installé fa tannerie jël fa der yi ñu fa traité yóbbu ko vers euh, Ngaye mu nekk mu nekk industrie de sourcil moderne mu nekk industrie du cuir nga xam ne ni à partir du cuir am na produit dérivé yu bëri yoo xam ne ceeb léegi bu ñu nga wax ci secteur privé Sénégal dafa am ay secteurs yoo xam mos ko xëccoo kenn nga jël la filière arachidière la filière arachidière Sénégal mos na dem ba produit plus d'un million de de tonnes te boo demee am tey la filière arachide à part de l'arachide gerte gi tu as dix huit produits dérivés te dix huit produits dérivés ñun am na Sénégal lu ñu ci gën a intéressé ci gerte gi buñ ci amee ñun sunu ngooñ am ci suñu làkkal mën mën nañ toog ak importé ay ay ay ay xar chaque année ñu ngi importé yi dem ci bu ñu ngi dem Mauritanie di fa wut ay xar ak ay Mali alors que tey zone yoo xam ne tey élevage nangu na ko tey boo demee tey nga mel ni il y deux millions d'hectares de terre amul dara mm-hmm. moom nga mën fa béy coton ñu suñu benn structure ñu remettre ko sur orbite fii on a presque combien d'usines yoo xam ne textile yu fermé mën na six te Sénégal doon piste yu baax te doon qualité ba di ko exporté mais lan moo xew entre temps buñ produire ba usines yi tey naar yi jënd ko def ay dépôt loolu dafa ruslu su dëkk boo xam ne ni dafa am bombe sociale ma maag teg son bët kenn nettalewu ma ko xale yi ñu dëgëral Jakarta yi bi foog naa ni tey man nee naa dinaa woo douane cette statistique d' moto Jakarta ëpp na ay millions bi ay milliards scooter réew mi te loolu dafa rusu tey ñaari filière mën na ñu see génne waaw nga dem nga dem kii dix-huit nationalité ñoo koy yëpp kilo di bi mu ngi jël kii huit mille francs gën a cher Dakar kéedu ko booy dox ci kaw maar bu ngay dox qualité de bonne qualité première qualité day mais tey lan moo xew ba ñun exploité loolu. lan nga jàpp lan nga jàpp ni moo ko waral manque de volonté politique la. venant des autorités manque de vision la manque de vision euh, chronique. bul sonn kaay ma benn affaire mhm. man dama toog fi jàpp suñu ñaan maa mujj wut caution maa mujj présenté mhm. parce que xam naa lii bu ma ci teggee suma loxo ah, du baax. sama ça fait ça de vingt ans maa ngi xool de commerce yi maa ko bloqué depuis quinze ans kenn renouvelé ko te yooyu euh, France amul ministère du commerce de commerce mooy Angleterre amul ministère du commerce mooy rek yooyu pour doon ay chambre yoo xam ne ay ambitieuse incarné par de véritables acteurs mais ñooñu tey ñooñu tey ñooñu ñoo ñu ngi développé mais ñun suñu dëkk bi si yoruñu dara mel mel rek di matériaux quoi mel ni tey suñu dëkk bi lam lamel na tabax waaw ah, mais mais loolu duñ mais dafa rusu man daal boo bëggee dégg dëgg man économiste laa doctorant chercheur li may suma liggéey dama mokkal ko rumbu mooy seet dëkk yi ñu raw yëpp lu tax ñu raw te xam naa tax ñu rawoon ma loolu rek laa leen di liggéey te nag loolu man dama ci yàgg di ko gëstu mais nag malchance la ma mënoon am mooy Abdoulaye Wade président xoolu projet ma ko doon proposé président Macky Sall am na lu mu ci jéemoon yeggali ko xoolu ci dara léegi nag ma ne man ay politique waruñu maa mën a bloqué dàquñu maa jàng gënuñ maa xam dëkk bi ëppuñ ma fulla ëppuñ ma fayda man ëppuñ ma jàng donc tey man damay soobu comme ñoom fas yéene see taxarib tey su may projet bopp rek man je suis le promoteur de la première carte privée au gare euh, privé au Sénégal man autorisation pour un héliport deux mille seize laa premier courrier bi ma échangé ak feu di bokka juillet deux mille quatre tey ñu ci novembre deux mille vingt quatre. Euh, muy vingt quatre muy vingt quatre mois. bougé wuñu ci projet département ci Lac Dakar Mbour. tey heure bi waroon na fi ñu ay centaine de potes yoo xam ni ci biir géej gi muy doon ay bateau de présence guddi gu mel ni émission bu mel ni ñu dem tenir ko ci kaw ci biir bateau bi nga xam ne ni tey euh, Sénégal euh, bateau yi capacité six cent places ay nit ñi ñëw toog dugg ci bateau bi ñu ñu ñuy wër Dakar. on a 718 kilomètres de côte 600 nit bu liggéey ci bateau nga am ci 10 euh, képp kuy jaay yàpp ñu lamb sa loxo képp kuy jaay ginaar ñu lamb sa loxo kuy jaay salade ñu lamb sa loxo kuy jaay boisson ñu lamb sa loxo yooyu yëpp nañ ko jaay ci biir ci jaay ci biir navire yi orchestre yi di produire di produire à bord dootoo job chanteur wala artiste mu ne gëj naa am spectacle mais loolu par rapport à la chaîne ñu ngi développé réew mi jël ay secteurs yu am fulla ak fayda di ko di ko di ko di ko di ko di ko émerger waaw comprendre nga. comprendre nga lu mën a liggéey réew bi par laa ñun xam nañu ko. mais fi mu ne nii boo gisee ma sóobu ji mooy ñu bëri nañu xalaatu côté boobu. Mhm. moo tax man en tant que membre du secteur privé opérationnel. Mhm. sakk naa ci lépp. Mhm. parce que yéen nag ñaan yàlla. Uh-huh. am un groupe parlementaire à l' assemblée. Uh-huh. à côté du gouvernement. Uh-huh. ñu wan leen axe bi. wan leen fan lañu war a appuyer. Mm-hmm. pour Sénégal mm-hmm. mën a décoller. Euh, di ko jaajëfal bu baax di ko jaajëfal bu baax euh, Birane euh, Yaya wan président conseil national des dirigeants d'entreprise du Sénégal nekk en même temps candidat ci élection législative yu 17 novembre 2024 yi ñu mal mu mel nii dégg nañu ko dégg nañu ki nga xam ni moom mooy Birane ma ma ñëw si yow d'abord ndongo laata ak may ñëw ci commandant yaakaar naa wax na ba wax ci wàllum cuir bi mu nekk question boo xam ne yaa ngi ko doon soulever sànq mm-hmm. surtout jëm ci politique euh, politique bi nga xam ne Sénégal war na ko ci def te ba léegi euh, réussir ko si jamono joo xam ne ay étranger mu mm-hmm. ngi ñëw ci réew mi di jël cuir bi di ko yóbbu mm-hmm. bu ñu ko yóbboo di ko yóbbu ci yeneen dëkk yoo xam ne dañu koy dellu silaat en tant que matière première mm-hmm. jërëjëf cuir boobu muy wax dama koy appuyer te li mu wax dëgg la xam-xam la wax it euh, boobu dañ koy yóbbu ba demee Seras fii dañuy génn